Assalamualaikum, suñu mbokk internet yi maa ngi leen di siyaar bu di leen nuyu di am kontaan ak mbégte lool ci teew bi nga xam dañ ko fay teewaat tey ci seen chaîne bi nga xam ni moom mooy Modou Modou TV ci émission bi nga xam ni moom mooy émission cëy lii cëy lii nag tey xibaar bi nga xam ne moom la leen indil tey mu ngi nekk benn jigéen boo ni ma nga dëkk ak way bu jigéen waaye tamit way bu góor dafa génn aduna xale boobu nag suñu borom dogal mu am benn gu yàlla boo xam ne doon na bëggante ak moom fii ci réew mi waaye bëggante googu nag xaw a yàgg lool yàlla tamit li nga xam ne moom dara yàlla def ci sëy ndax nag suñu borom defu ci sëy loolu yàlla la soob waaye teewul lekk mu ànd ak ngorom ànd ak diinam rek gëm ni suñu boroom borom kër bi nga xam ni moom la ko tànnal borom kër googu moom moo yegg seegul waaye nag yamu ca xale ba wëy na dugg ci ay daayira di topp lislaam di topp tamit ki nga xam ni moom mooy tarixam muy alaaj malik mi nga xam ni moom moo taxawal tarixa ya mu nekk ci jàmbaar lool doon tam ku ñu ràññeeku lool tamit ci jooju la gox yàlla dogal mu wax ni am na waxambaane bu góor bu nekk tamit bitim réew boo xam ni bëggante woon na ak moom yàlla dogal mu bëgg ko lool waaye ay waajuram bañ na duñ ko ko may waaye tamit yàgg ya naa wax ni wuy jur ya yenn saa yi ñu gàllankoor seen doom ci ñaari si seen i bëgg-bëgg waaye tamit yemu ca ndax soxna ci wax na ni ginnaaw bi suñu borom dogalee mu ànd ak xale bu góor boobu ay at mu koy wax ba sonn mu mujj ànd ak moom yàlla mujj naa dogal ñu mujj ko may jooju la soxna jooju la góor yàlla. comme nag may nañu ko góor yàlla googu mu nek borom këram nekk yow am na loo xam la dafa laxasu ci biir sëy boobu. lan moo ci laxasu ndax xale bu gër boobu ku yàgg lool bitim réew la am fi doom joo xam ne am na fukki ak ñett te mosu koo teg bët waaye tamit yemu ca ni xale bu góor boobu nga xam ne moo ne bitim réew bàyyam bi ko meññ nekk ci réew mi génn àdduna te yëgu ko mbàyyi tam bu ko yëgee tamit ak siwul ci réew mi wax na ni borom këram boobu ku yàgg lool bitim réew la te ñëwul ba sax aawam bi mu njëkkoon am aawam boobu mujj na dem yoonam bàyyi ko waaye moom tamit mu mujj faa toog rek fi may wax ak yéen toog na ba fukki at ak juróom-ñaar gis genn góor go hamni ne dafa ko takk tey mooy itam bu mu ko takk tamit wax na ne ku góor kooku di modu modu Ba gisoo ko fenn fu dul ci Facebook la ko gisee ak yu ni mel ci biir loolu nag mu di ko xaar di ko xaar xaar mu ni ko gis te amal ay gëstu yu yaatu yaatu yoo xamee ni yaatu na ci lool nekk boroom kër googu def na jiya goo xam kenn mënul xam na mu toll ca bitim réew fii nii wax ak yéen nag yoon tegoon na ko loxo ci fukki at ak ñaar ba tëdd na ko ba yàlla dogal mu génn ko ba mu ko génnee nag moom waxambaane boobu di moodu moodu boobu mujj ak génne nag Europe dem beneen dëkk ci côté Amérique toog fa juróomi at ba yarub koom lool nag xëy benn bés nag daal yegg nag ci biir réew mi mu nekk xibaar bu tiis boo xam ni booba ndaw sa ci boppam bàyyi woon na jooju la sëy ba am beneen boroom kër ba am fag moom ñaari doom mu nekk na xew-xew bu tiis goo xam ni yenn saa yi moodu Modou na tukki yàgg ci àll lool am ci ay jafe-jafe te kenn du xam ca la mu nekkee ba jafe-jafe jooju dana tax këram ci ginnaaw tas te itam senegal yi duñu laaj ci moom la moo xew waaye tamit ni ma ko yàgg waxee rek gus yi nga xam ni moom la télé bi def muy Modou Modou TV day gën di yaatu yaatu googu dem na nag kon gisante ak waxambaane bi nga xamee ni moom la mbir moom ma daloon mu wax ne ci heure la ko dalee woon yaakaar naa beneen yoon dañ si ñëwaat mu yaatu bu baax a baax jërë ngeen jëf